revue de titre waaye kii di Bassirou Diomaye wax na ci Ousmane Sonko suñu naataango Pape Alé suñu grand wax ni màggaayu kii di euh, Ousmane Sonko ci wàllu politique ak taxawaayam dafa doon loo xam ne nouvel chapitre la dans l'histoire politique du Sénégal. mu ni chapitre la. waaw dafa ni euh, taxawaay ak màggaayu Ousmane Sonko beneen chapitre bu bees la. beneen chapitre non Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane lépp chapitre la euh, dama xool jaar jaaru Sonko. ba yàgg ma ni cey bu mu Ousmane ñëwaatoon jamono. Mhm. est-ce que du ko def film bu Ousmane Sembène ñëwaatoon jamono est-ce que du ko def film Baye Moussa diggante 2015 ak léegi. Mhm. moo tax na gëm yàlla doo nga am solo matul fukki at de li muy metti metti metti metti matul fukki at. radiation ak léegi. ak léegi def naa 2015 daf mu juumul. 2014 wala 2014. 2014 fukki at net fukki at net. maa ngi fàttaliku bi ñu koy soog a rajee à l' assemblée nationale euh, non info et ñu in Pape Cheikh invité woon ko seen TV. Mhm. <laughs> ñu ne kii kenn da ko xam. jour boobu defuñu débat 31 décembre. ndax oh. amuñu woon ay invité yu mat te Ousmane Sonko dañu ni du dugg mu comprendre talaata otom dem ca déwén sa. Ousmane Sonko lu ñu jëlaat pour mëna concurrencer télé Macky Sall wo contre Sen TV. ci plateau bañ ko ganto bañ ko ganto ci déwén sa. nga xam ne yàlla dong moy mooy Baye Moussa amul benn homme politique bu antan li ñu teg Ousmane Sonko. ñu teg la ngay résister di dox moralement kese amul ko ko antan muy dangaa violé jigéen te du deug lolu dong lolu dong kenn antanuko mais man fan la jëk xamé ni li accusation la du dëkk man dossier dama ci mos a farouche naka jekk ma nekk seen bi da mos a ànd ci ndaw si waxul dëkk. Mhm. mooy fenn donc laa sukkandiku mooy capitaine Touré un gendarme sérieux honnête def enquête am ni lii ay nar la. moom du ma la wetti gis nga bàyyi ma bu ñuy wax suñu institution yi foofu la ñuy commencé foog ñu respecter suñu homme de tenue ñooñu ñoo war a ñooñu la ñu war a jëkk a respecter d' abord. Mm-hmm. bu defee enquête ni loolu dëkk mu bëgg mu bëgg cee nekk victime affaire yi changé Ousmane Sonko jóge fa dem ci benn meeting wax ba noppi Mame Mbaye Niang ni ko dal na ni ko du fi lu ma la waxoon Khalifa. Mm-hmm. booba MMD Média dafay soog a commencé. Mm-hmm. Khalifa ak Zal nekk ci def stage yi def ay liggéey foofu mu chaque dimanche ñu ñëw gàlle ñu def ay émission def ay interview bi mu nee càpp Mame Mbaye man ko Mame Mbaye bës dong la bëgg. parce que Ousmane Sonko ko ko songo di nga am buzz di nga siw dama xam nag buzz ba nan lay démé <laughs> parce que bukki bi jollo mom kenn gënu koo siiw mhm. waye du tok ci souf kër est-ce que di nga lima la wax mhm. bukki jollo bukki ligue becc nga wacce ko Dakar mhm. dina siw dé waye du tok ci keer dé ni ko ci aduna bukki jollo muy gëna siw waye du tok ci kër déet waay waaw waaw ma mambay da bëgg siw dong dé ñu ni dété waye mambay ni non man nag damaa amoon courage de ay man sant yàlla ci nguur Macky Sall gi bi mu jeexee président Macky Sall ma ni Mame Mbaye Niang doo fi xaaja jaay kër Ousmane Sonko yow. doo ko jaay fenn. mel ni Sénégal gi amul yoon ba nit ñi di xool yow nga naan da da yow dañu lay àttee Ousmane Sonko yow ngay jaay këram. vidéo baa ngi fi. Mm-hmm. am na benn xarit bu ñu bokk man ak moom moom sax sama waay la woon benn xarit bu ñu bokk man ak moom bu ma woo. teeru bi ni ma sa waay génnal fi nga dugg man ko yow bi nga ma xamee daan ma may ñaari junni ma ci paas di dem buur ba léegi gudd fi ma nekkoon fa ma nekkoon falaa laa ne di kon bu ma ci génnee dinaa war sama bopp di ko ko dinaa war sama bopp di mm-hmm. ba ma nekkee def stage RFM yenn saa yi mu mu mu mu mu ndóol nga may ma dix mille wala vingt mille ndeysaan keroog muy génn sax ndeysaan mu ngi maa ngi génn ñu génn man ko waaye baa xam talaata jox ma vingt mille damaa ko dàq oto kat waaye cër la man ko defal na nga daan def. Mhm. waaye li nga ma woowoon nii moom du woowu ful la moom ne la wóor ni moom yoon bii ma nekk nii ci lay nekk maam Mbaye Niang du jaay fenn kër Ousmane Sonko. waaw léegi maam Mbaye Niang fexe na ba euh, Ousmane sonk demul ci élection yi waaye Ousmane gagné na leen. waaw parce que Ousmane moo ne leen d'accord téye ngeen ma waaye jomoy demal <laughs> loolu la yàlla dogal. donc papa Alé li mu wax histoire yu ak Sonko ben chapitre la bo xamante ni bi jaar jaar Ousmane Sonko lepp film la bo xam billahi bokay netti do ci doyal. président Macky Sall sa boy fexe na ba collé ma motif ba ñu éliminer ma sama boy dina fexé ba éliminer yow sa candidat. ba éliminer sa boy waaw sa boy mo éliminer sama boy éliminer sa boy <laughs> élimination bu kenn mës a gis nag léegi li doy waar ci Ousmane Sonko fi mu jaaraat dem di def tournée nemmeeku tour ñu japp fadilu Keïta coordinateur bu dugal ko kasso ci tuuti lu mu bind ci Facebook tikki comme ay tuuma yu ken xamul nee ko bi mu génnee woo déggante nañu ndeysaan ma ko fadilu liñu liñu la tuumaal de kuñ ko tuumaal duñ la bàyyi ak kesse comme dal ñii <laughs> lañ la bàyyee ni rek ni dal lañ la bàyyee ni ak loxoy kesse non yo mo na trop fadilu Keïta jiite association d'éleveurs bi gën a ngand Sénégal nek un grand ko xamanteni bi bay Moussa kooku dong dong dong Bassirou Diomaye mun na koo jël contenté wu ci mom pour développer élevage. Adam bi ngay dégg ni Adam su ngay dégg. lii mooy président bi. affaire ñi élevé affaire éleveurs yi foire yi ngay dégg yëpp Fadilou Keita moko ko mo moo association bi leen bon. Mhm. nek expert nek jambar ci walu élevage. ñu ko ci kasso bi rat. ma dem ci foire Adam sa ma ni li nga def jaaduwul de yi ni ngi def foire ministre de l'élevage ñeu di leen nemmeeku. ñu jàpp seen président dugal ko kaso te kenn jooytu ko bàyyi leen ragal ma def ci vidéo ak Bàcc Sàll miy def émission gayen al gàlle ay naa bi fii ci MMD Média mhm. ñun dong ñoo ñi ma woon wax affaire Fadilou ñu attaqué seen garde yi ci kii xeex ak ñoom jël ñuy dugal kaso Nous ni way Ousmane def tourner ak moko déplacer déplacé la ki parce que Sénégal gépp ko bëgg parce que dugg sa kalandoo sa aussi. ñu dogalé wat ko mom Ousmane taxañ ko fofu wax ana téléphone bi ordinateur bi ak sagam bi xana ko de ah, ah, Ousmane Sonko ñu barricade ko buntu kërëm ñaata film la Moussa ñu ni ñu escalade xanaa tuumal sàcc dinañ ko convoquer bañu woko mais dañu escalade mi yéeg ci kaw garab bi ay kóoni comme kuy def opération ñu Ousmane Sonko fit fi ko yàlla may mom donc am parce que li ku mu doonoon bàyyi da ngay trëf mhm. non da ngay sede da nga naan non jaratu ko mais fi ma xam ne kii du nitu nen bi ma déggee ñu ni way juromu jigen nen na ko boo ci fi nga nekk boo yokkatee benn centimètre oh. ngir ñi la yaakaar bu Il y centimètre des yëf Il y a des ci am solo a de. Il y centimètre des ni la y ak ñi Il y ndax yow Il y sax des dem Il mu dem des <laughs> parce que bëgg a des Sénégal a des ko mu nekk ci biti Il y a il a même provoqué il l'a même voulu Il mu dem ci kaso bi genre politique valeur yooyu il y au Sénégal. Maintenant.. <laughs> Il ci a ak Diomaye un bi waxtaan bi ci kaso bi gisante bi c'est un long chemin loolu bàyyi xoolal loolu le feuilleton la loolu loolu leneen la loolu loolu loolu xamul nu mu tudd kii yaa moo tax wala histoire Sénégal moom dinañ ko ci. dalal leen dalal leen seen xel dëkk bi dafay dëkk dafay euh, dëkk. yi